safarul xayr safarul xuruj safarul xaraaj di juróom ñaari fan ci weeru safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar di leen ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan sunu boroom bis bi nu dëgmal nu àgg ca ak jàmm te defe ko ni ko boroom santaane te am ca yool bam mu te yàgg koo fekke ci ginnaaw sunuy sunuy kilifa xam naa ajuma ji jii di ñëw bokk yi fi toog danañu dikk ak yéen ci bis bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal waaye damay fàttali sama bopp di leen fàttali xam ngeen ne bi sëriñ bi di wootee bis bi mu ngay ju liggéey bi nga xam ne moom la sumb te mu wax ne la ca nara dem te mu takk lool bis bu sottee la koy doxal tam mooy gën a bari moo tax waxtaanu tey wi ñu bëgg koo jëmale ci fab sa wërsëg di ko def ci yoonu yàlla te moom la mag ñi daan wooye ñuqi kon sunu boroom dafa santaane ñaq ngay kër-këri di faste xànc moroom ma waaye soo faste xanc ak moroom ja ba sunu boroom xéewal la ngay ñuqi nag di jéem a njukkal sunu borom ndax soo dee liggéey yàlla li mu santaane da bari loo xam ne man-man moo koy tax a sotti ndax lu mel ni azaka ki liggéey ba am moo ko mën a jëf lu mel ni yor sa njaboot di leen saytu kiy liggéey moo ko mën a jëf lu mel ni teraanga ju mat sëkk ci ay wayjur ak i bokk kiy liggéey moo koy mën a jëf ba mat sëkk kon nag sunu borom dafa soññe ci liggéey di sàkk lu lew soo amee lu lew nag ngay ñuqi nag di ko delloowaat ci sunu borom moo tax fu nekk sëriñ bi ñaan na fa sunu boroom mu wër wërsëgale ko lu lew di ko sant itam ca la mu ko jox tamu lew laka shukuriya ala alxalaali yaa maaxiyal imlaaqi wa dalaali wa lil makaarimi qudil axlaaqa waltaqini dalaala wal imlaaqa bu ñuy jàng alquran dañuy gis ne sunu boroom day tudd julli di ca soññee waaye day tudd tam ñuqi di ca soññee ndax ba muy wax ba naan wayu wa yuqimuuna salaata da caa teg wa mimma razaqnaahum yunfiquun kon ni mu fonke julli noonu la fonke ñuqi te jaamam yi nga xam ne su ëllëgee ci teraanga rekk ca lañuy nekk ba muy wax seeni jëf ya nga xam ne moo leen ko may da ca boole ne innahum kaanu qabla zalika muxsinin kaanu qalil min al-layli maa yahjacuun wa bil asxaari hum yastaghfiruun wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili wal mahruum nit ki su yàlla te muy dëgg day jéema njukkal yàlla ca lam ko jox ndax day xam ne yàlla ko ko jox moo tax mu ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii mu tekki ne fa alladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir kon ki gëm yàlla te muy dëgg ci moom la ko yàlla jox da cay jéem a njukkal sunu borom ndax sax day xam ne moomul boppam kon la ñu jàpp ne moo ko moom loola sax moomu ko dañ ko ko dénk rek muy wërsëg wi nga xam ne moom la ko yàlla jox moo tax sunu boroom ne lu tee ngeen di fab seen wërsëg di ko defaat ci yoonu yàlla te xam ne yàlla li ci asamaan ak suuf lépp moo ko moom te mooy joxe wa ma lakum allaa tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathu samawati wal ard mbokk yi nañu xam ne teraangay àdduna kenn ku ne soo xëyee di ko sàkku di ko sabablu am na ñoo xam ne moo tax lañu ñu ko su néew wala mu bari dañu koy téye duñ ko nangoo génne ndax jàpp ne suñu ko ñàkkee ñàkk nañ teraanga dangay gis koo xam ne danaan fi ma jaar ba agsi fii di fàttaliku yu metti ya mu jaar jàpp na nag li mu am su ko delloo ci yoonu yàlla day dellu fa mu nekkoon kon fàtte na ne teraangay àllaaxira moo sax te moo wér moo gën fuuf teraangay àdduna fa ma uutiitum min cheyin fa mataaul xayaati dunia wa ma inda allahi wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun sunu borom sax jaamam yi nga xam ne da leen a gërëm ba di leen tagg da ca boole ñi nga xam ne la ñu am bariwul waaye dañ cay jox yàlla ak ñi nga xam ne la am bari na waaye nag duñu ñu ŋott kon li ki am tuuti bu mu joxe lépp waaye bu mu fàtte yàlla ki am lu bari bu mu joxee lu tuuti ndax su boobaa jéemuta delloo njukkal sunu boroom borom walladina ida anfaqu lam yusrifu walam turu te lu baax li nga xam ne danga ko bëgg a def bul ko waaj ndax sunu boroom xamoo na muy doxale la nga yor mën na mën naa mën naa sànku mën naa laatu yow mi ko yor tam man nga fay jóge man ngaa faatu kon li nga yor balaa laatu wala yow ngay faatu euh, nanga nga jëfe li mu wax ne fastabiqul xayraat na ngeen njëkkante sàkku tuyaabu fa saariu lil xayri qabla fawti sunu borom nag moo bind te yemalewul jox ñii lu takku jox ñii lu digg doomu jox ñii aslëf wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq kon kenn ku ne fa nga toll fa ngay jéem a delloo njukkal sunu borom te xam ne loo ca def sa bopp rek nga ko defal ndaxte ki am wërsëg di ko def ci yoonu yàlla na xam ne ma ngay sàmm alalam yàlla soo ko dee jéem a delloo njukkal dalay sàmmal sa alal ba kenn du ko kenn du ko faagaagal kenn du ko ayibal su ko defee moo tax mu waxoon ca xadis ba ne am xasinu amwaalakum bi sadaqa su ngeen bëggee seen alal ñoŋ na ngeen koy defaat ci yoonu yàlla te itam sooy def sa alal ci yoonu yàlla day wane ne yow ñanay bokkoo ca te yàlla nee na képp koo xam ne mucc nga ci nay xamal ne yaay ki texe sooy fab sa wërsëg di ko def ci yoonu yàlla sa loxo di féete kaw nanga xam ne yaa am loxo ba gën ndax loxo bi féete kaw moo gën kon buleen leen waa bu bu kenn yeexe jëf lu baax ci yoonu yàlla ndax dee day bette te nit su ko dee ñëwalee xelam du dem ci julli ya mu doon faat wala asaka ya mu doon bañ a joxe julli ya mu doon faat wala koor ya wala màkk ya waaye xelam la muy jëkk dem mooy alal ji mu denc waroon koo njukkale sunu borom te deful loola wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum almawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajlin qarib fa asaddaqa wa akum min alsaalihin kon gis nga ne nit ki dee ñëwee du xalaat lenn lu dul la mu yor te denc ko su ma yëgoon def ko ci yoonu yàlla su ma mënoon delluwaat ca sama sago ak sama man-man dama koy def ci yoonu yàlla dana fàtte julli gum faatoon wala aj gum faatoon wala koor gum faatoon waaye alal ja mu denc te defu ko ci yoonu yàlla loolu rek lay fàttaliku am na ku mos a ñëw ca sang ba alayhi salaatu wasalaam ne ko yow mi yàlla yónni kuy def sa alal ci yoonu yàlla lan moo ca gën mu ne ko xanaa bi nga doonee ko wér ne càndang dara méttiwu la dara jotu la saa soo xëyee di wut loo am jamono joojee day soo fabee sa alal jox ko ci def ko ci yoonu yàlla xamal ne moo gënal yàlla waaye nag néeg ba nga xam ne cëgg desul ci guy néeg ba nga xam ne ba dafa weesu mbuus dee ñëw na nga soog di batale nag defal leen ma nangam defal leen ma nangam defal leen ma nangam nee na loolu amul njariñ yaa rasulallah ayu sadaqati aadam qaal at-tasadduq wa anta saxiix wa anta faqra wa taamulul ginaa wala tumhil xata ida balagat al xulquum qulta li fula li fulaanin kada wa li fulaanin kada kon néeg ba nga xam ne lépp jeex na jaaxaan jeex na nga soog nag di batale lu baax ak di def lu baax yàlla de du tas du tas yaakaar waaye am na fu mu gën a baaxe woon ki dox sa digganteeg loola nag ba tax nga di ko waaj ba dee dikk du kenn ku dul seytaane kon li nga war a def ci lu baax di ko waaj xamal ne seytaane rek moo rek moo man ba tax nga di ko waaj alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla wallahu waasiun alim nañu xam ne itam looy def ci yoonu yàlla ci saw ñaq bu bu ko puukare bu ko wanewoo nang ko def ngir ngir yàlla képp boo sañoon sax da koy nëbbu ba kenn du ko xam ndax lépp loo xam ne wanu da ca bokk suñu boroom amu amu soxla yaa ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal ada kalladi yunfiqu maalahu ria annaas wala yuminu billahi wal yawmil axir kooka de lu mu def sunu borom amu ca soxla الله أكبر أشهد أن لا إله إلا kon li nga xam ne danga koy def ci yoonu yàlla bu ko bu ko bu ko tudd di ko wax wala nga di ko feeñal bu fekkente ne soo ko feeñalee nag day tax ñu roy la ca baya boo nga di ko feeñal in tubdu sadaqaati fa ni'ma hi naka jëkk nag sunu kilifa yi ne ci sunu kanam saa su ne ñuy wane aw yoon di jëf lu baax di fob alal di ko def ci lépp luy yëkkati lislaam ak lu koy taaral loola mosu fee jóg la ko dale ca ku baax ki nga xam ne lii lépp mooma ca moom la tàmbalee woon wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafau lwara fi subhihi wa masaihi ak ñam àndaloon ni ñépp nag ak ñi ko wutu ñépp ba tax na xam ngeen sunu kilifa gi li nga xam ne moo dal ci kaw àdduna dal ci kaw senegaal bi mu amee dafa def na ay kilifaam daan def yëkkati lu takku jox ko ñi nga xam ne ñooy saytu wàll googa te gannaaw day ku ñuy roy day kuy wanew yoon lu bari ci njaboot gi def nañ seen kem kàttan ngir jéem a sàkku tuyaabo ci jaar ci ay tànkam waaye gis ngeen bëkk démboo njaay rek mu defaat lu mel noonu ndax ay mbokk yoo xam ne deret ñoo ko bokk diina ji ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk kon bu ñu yëkkatee naal woo xam ne naalub lislaam la bu sottee de day doon ci màndargay lislaam yi bokk ci santaane yàlla yi bokk ci sagub lislaam mu sàkkate ay ndaw yu mat ndaw jox leen lu takku ne moo ko jëf ca liggéey ba loolu lépp day wane ne moom dafa war a aw dafa war a wane aw yoon na ko ay kilifam daan wane. kon nag ñun ñi nga xam ne njaboot lañu ñun ñi nga xam ne taalibi lañu kon na mu def nañ ko ca jéem a roy kon naalu woowee na ci ñépp def lañu man ndax yàlla rek moo tax ñu moo tax ñu di ko def te nit ki suy jëf lu mu tuuti tuuti ba mu ko xeeb waaye lu mu rëy rëy ba mu ko naw dafa am bis sang ba santaane ne na nit ñi indi seen alal ma defal leen ko ci yoonu yàlla sidna omar ne booba fekk na ma yore alal ma ne abu bakar ndey euh, fu mu jongante ak man rek mooy daan mooy daan waaye tey de fas naa ko yéenee daan dem xaaj sama alal ci digg ba ñëw joxe ko sang ba ne ma loo bàyyil sa njaboot ma ne ko genn wàll genn wàll ga laa fa bàyyi waaye Abu Bakrin moom ñëw jox ko lu takk mu ne ko loo bàyyee sa njaboot mu ne ko yàlla laa leen bàyyee ak yow kon joxe na la mu am lépp kon gis ngeen loo ne kenn mënu ko rek am na ko ko man loo ne kenn xamu ko rek am na ko ko xam kon joxe la nga yor lépp ñëpp mënuñu ko waaye am na ñu ko man te def sa alal ci yoonu yàlla mën naa tax nit ki ñu fàggul ko ca lu kenn musta foog xoolal Ousmane Ibnu Affan xoolal di ko yàlla deñ ci ñaari doomi ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam yàlla mbay yàlla ko toppatu ko dara ana lu ko ko may mooy fab ci war wërsëgam di ko def ci yoonu yàlla haazab na tayhi wa ridwanan wa maxfiratan anhu qad xutta ijhaarun wa israaru loola mooy maa darra usmaana maa amila baada al yowm am na ci saxaaba yi kuñ naan abu talxata mu amoon tool bu rëy tool bu naat tool bu bari meññat te bari ndox mu neex mu dégg rek alquran naan lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun bala ngeen am lu baax da ngeen di fab la ngeen gën a fonk def ko ci yoonu yàlla ba mu ko déggee rek mu fab lam tool ba def ko ci yoonu yàlla loolu mosu fee jóg sunu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon àndoon ak ku baax ki noonu lañ doon doxe dawul daw ñu denc dara moo tax bi ñu fi jógee bàyyiwuñu fi dara mos naa ko wax fii mos naa wax fii ne maam Cheikh Ibrahima Fall wax nañu ne mosut a génne asaka ndax nisaab kay mooy tax a génne asaka te mosut a denc nisaab. lu mu am da koy joxe lu mu am rek joxe kuy denc nag mooy am nisaab kon naka jekk mag ñi noonu lañu daan doxe mooy lañu am dañ koy njukkali sunu borom moo tax sëriñ bi ne walaazimul infaaqa fi sabili man lahul qulubu wal fiaalu wa zaman nee na na ngeen sax ci di ñuqi di ko def ci yoonu yàlla mi nga xam ne lu waaye fas ci sab xol ak lu waaye nar xam na ko waaye lu waaye jëf tam gis na ko nee na sax ku bëgg tuyaaboy tey ak ëllëg dangay fab sa alal def ko ci yoonu yàlla amma tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi kon ku bëgg tuyaabu ju yemul fenn fenn dangay fab la nga am di ko def ci yoonu yàlla doomu aadama nag sunu boroom da ko mooñaale bëgg alal doom aadama sax am na ci ñoom ñoo xam ne ndaw ko ndaa yeeg ñoom ñoom am na ci ñoo xam ne bu leen yàlla joxoon adduna ak li ci biiram ne leen yéen a ko moom du tee ñu teen ca kaw ne buñ ci boole woon asamaan day day tax mu gën a baax rek qul law antum tamlikuuna xazaa'ina rahmati rabbi idan la am xashyata al infaaqi wa kaana al insaanu qatuura nañu xam ne wërsëg soo ko da joxe du ko wàññi mukk du tax mu jeex mukk ndax sunu borom moo koy wutal loo def da koy wuutal xam ngeen ni ki am xam-xam di jàngale xam-xam ndax dana tax xam-xamam wàññiku déedéet day yokk ndax day tax la mu xam day gën a mokk la mu xamul da koy gëstu ji la mu xam kon day gën a bari alal tam noonu la sooy def ci yoonu yàlla day gën a sekki day gën a barkeel moo tax ku tedd ko wax ne maa naqasa maalun min sadaqa nee na ku defe ne alal day wàññiku ngir jëf ga ngay jëf ca yoonu yàlla booba danga xamul wa maa anfaqtum min xayrin fa huwa yuxlifu wa huwa xayru moo tax sëriñ bi wax ne yàlla mooy ki nga xam ne moo la ko jox te soo koy defaat ci moom soo soo defaatee ci moom mu def ci yow loo def ci moom rek mu def ci yow te yow sab def-def moo xaj ci moom waaye def-defam xajul ci yow li annahu subhanahu wa taala huwa alladi aataaka daaka almaala kon bokk yi képp koo xam ne da am lu néew del joxe te lu néew la nga am bul wax ne damay néeg ba am lu bari kenn ku ne la nga tollool loola ngay jëf soo amee lu néew ngay jëf lu néew soo amee lu diggu doomu ngay jëf lu diggu doomu soo amee lu bari nag bul ngott ngay def lu bari te xam ne yàlla du naw ki def lu bari du xeeb tam ki def lu tuuti xol ba rekk lay seet am na bis sang ba wax ne waaw yéen seen alal ak alali jàmbur lan moo leen ci gënal ayukum ayukum maalu waarisihi ahabu ilayhi min maali yéen seen alal ak alale jàmbur ana lan moo ci gënal qaalu ya rasulallah ma minna ahadun illa maaluhu ahabu ilayhi koo seen muy dem xamal ne yëfam moo ko gënal yëfi jàmbur qaal mu ne fa inna maalahu ma qaddam wa maalu waarisihi ma axar nee na xam ne sa yëf mooy la nga dawal ci bàmmeel la nga def ci lu baax mu lay nekk ëllëg loola muy sa yëf waaye li ngay dajale yëfi jàmbur la ndax soo faatoo dañ koy donn kon nag sa yëf na la gënal fi jàmbur mos naa wax tam moom sang ba ne nit ki de day dajale rek lu mu bari bari mu di ko xeeb waaye la mu def ci yoonu yàlla lool rek la ci am kon nag yàlla ñu yàlla yombalal lu ñu ko njukkale def ko ci yoonam wi yàlla nañu yàlla yombalal la wërsëg woo xam ne sunu kilifa lépp lu mu sumb bu ca wootee ñu jëf ca lu ñu luñ man ba jéem lu ñu mënut yàlla na ko yàlla yàggal ci sunu kanam te lépp lu mu tàmbali yàlla na ko yeggale wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

الله مدبر أمور الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أجل شفيع في المذنبين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه جعل للإسلام قواعد وأركانا وأمرنا بإقامتها سرا وإعلانا وجعل أعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس وحتم علينا إقامتها في أوقاتها التي بينها لنا بلا لفظ وجعل ذلك من أفضل القربات وأجل الأهل وأجل الأعمال المقربات وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن إضاعة الصلاة من أكبر الكبائر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين الحمد لله الذي عظم كرمه وعمت البلاد نعمه وعمت العباد نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود وعلى آله وأصحابه ذوي المعرفة والشهود أما بعد يا أيها الناس إن الموفق السعيد من نظر واعتبر وتأمل فيما مضى وغبر واتهض بمصارع السالفين وقد كانوا يرجون رحمة ربهم خائفين فلم يغتروا بنعم الله ودوامها ولا يئسوا من رحمته عند انعدامها بل كانوا كالطائر بين جناحيه لا يخافون إلا مولاهم ولا يرجون إلا ما لديهم faqad qarana subhanahu bayna alwacdi walwacid fi gayri ma ayatin min alquran almajid ka qawlih nabbi cibadi anni ana algafur rahim wa anna cadabi huwa alcadabu alalim وكونوا راجين من الله رحمته خائفين عذابه مسفقين من عدله منتظرين فضله وثوابه اللهم أدم علينا نعمتك ومنتك وأجرنا من عذابك المهين بفضلك وكرمك واغفر لنا ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلاد حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفيه ونيسرك لليسرى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 خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله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 جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.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 كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم